presse xew-xew moo koy dundal ñun ñii di artistes yi ci xew-xew la dox te xew-xew bu ñu def bëgg nañu ku ko jotale askan bi kon yéen dañoo bokk yoon bokk dëkk bokk mbëbët bokk bëgg-bëgg bokk yéen ndokk yàlla la ko xamee ñi ngeen ko defee nii foor na li ci gën a neex nag laata ñoo daaneel deretu xaadim rasul ñëw teewee ko sëñ Abo Mbàkke loolu euh, ku mu dalul sa xel yaakaar naa ne sa xel dootul dal loolu ku mu seddul sa xol sa xol dootul sedd kontaan nañu ba fu kontaanee kontaan nañu lool te di ñaan yàlla ñu yéex ko fayam ko ñi ngeen def rafet na euh, yéen journaliste yi yéen la presse ñun ñi ñooy seen njaboot lu ñuy wane tamu taaru yéen a ko war a wane fan yii rek maa ngi waxtaan musique sénégalaise presse sénégalaise moo ko war a jaay moo ko war a taaral marchandise ni mu war a mel borom marchandise ba moo koy taaral bi mën koo jaay te yéen la presse sénégalaise seen marchandise bi jiitu mooy la musique sénégalaise donc lii wane na ni am ngeen conscience ci ne yéen a war a doxal mbir mi yéen a ko war a rafetal yéen a ko war a taaral yéen a ko war a fexe mu mu mu voyagé ak ak ak réew la moom la war a di fësal. j'ai fait vingt ans au Japon bu ñu nee japonais wala ñu ne Japon image bu rafet rek la nit ñi di am ak ñoo yaru ak ñoo rafet ak ñoo civilisé. alors que am nañu yu ñaaw waaye góor nañu lu tëb ba kenn du ko gis seen seen lu rafet daal lañ fexe ba mu fës ñu leen di ñaan yéen it jàngalu leen métier sax gaa waaye xool leen li rafet ci réew mi ngeen wane ko mun na doxal tourisme mun na doxal suñu cosaan ak suñu aada lu mu mun a doxal ci réew mi bëri na te loolu ci seen loxo la nekk donc ñu ngi leen di gër ngërëm lu amul àpp di leen sant sant koo xamante ni xam nañu fa mu tàmbalee waaye wutaluñ ko frontière kontaan nañ ci yéen ñëpp góor jigéen mag ndaw jaru ko moom moo yàq àdduna gis nga lu ko jarul amul ñun tey ñooy magi réew ndax ñooy ndaw yi xam ne ñoo am jot mag jaanam wàcc na kenn toppatu ko dara ñun ñi nga xamante ni réew mi ci suñuy loxo la ñuy mujj te bu ñuy dem dañ koy teg ci yeneen loxo dañu fexe ba mu bu mu ñaawee ci ñun ba mu yàqoo ci ñun jërë ngeen jëf ñu ngi kontaan ci yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm yéen bi ngeen am ci seen presse yi ak yaakaar bi ngeen ci am yëpp yàlla dafa yàlla tas yàlla na yàlla def mu doon ci presse yi yu ñu gën a ràññee ci àdduna yàlla sax na ko mun na ko presse yi gën a mag ci àdduna New York Times ak yu mu mënti doon ci ci bureau yu ndaw lañ ko sose waaye mu dem tey ba bokk ci presse yi gën a ràññee ci àdduna liggéey rek la ak ak volonté